أهازني الباقي من السيطان حين رمى asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm am tuuti rek lu ñu bëgg a loo xam ne dafa dëggmal si te yitteel jullit yëpp itteel murit yëpp rawatina taalibe yi muy at mu bees ku ne xam na ne at mi ñu nekk jeex na yaakaar naa bi ñëw mooy doon seen wu jëkk bi ñu war a dugg beneen at muy atum jullit hijriya te mel ni jullit yi ko wala waar yu mi xàmmewuñ ko ndax dafa am milaadiya am hijriya milaadiya mooy samsiya hijriya mooy xamariya nun nag ci boobu lañ tënku muy gàddaay gi lañ ko tënk atum gàddaay gi lañ koy waxee hijra mooy gàddaay gi yonente bi gàddaay sallallahu alayhi wa sallam ngir soowee diine ngir dimbale jaami yàlla yi woo leen ci taxe at moomu nag julli dañ ko war a xam ndax ñu bari dañoo tënk rek ci atu tubaab yi ba xamuñu te alxuraan ak dafa tënku ci hijra bi moo tax julli war koo xam hijra bi nag ci la mooy weeru tamxarit muharram bokk ci la suru muharram yi ba noppi nekk weeru weeru am solo woo xam ni ca la xaasoora nekk taasooxa mooy reer yi waaye xaasoora mooy mooy mooy bisi ñaan yi ndax ku ne xam ne li ci xew lépp aadama bi mu tooñee suñu borom ca aljanna ba wàcce ko ci xaasoora boobu lañ ko jéggal yuusufa bi mu nekkee ci biir bi itam tooñ suñ borom nekk fa subhaanal suñ di sàbbaal ba ci taasoo bu ci lañ ko jéggal kon bis bi am na ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay daraje yu bare bare bare muy bisu musluwaay di bisu jéggulu du bisu teraanga di bisu terale am na yoo xam ne sax sëñ bi daal na ko ci téeréem boobu yoo xam ne yëpp dañ ko cee war a def waaye li ëpp solo ci nun nag xasora bi ci la sëriñ mag bi wàcce liggéey muy weeru tamxarit bi ci la sëriñ mag bi wàcce liggéey muy bis bi nga xam ne dafa wax ni mooy bis bi gënal ci bis yi mooy bis bi mu kon bu dul woon euh, lee sax lii rek war nañoo jëlaat nun taalibe yi ñu fonk bis bi waaye nag day bis boo xam ne suñu borom mënu ko dénk weer woo xam ne euh, at moo xam ne day euh, atu atu islam boo xam ne suñuy jàmm yàlla ak suñu yëpp ci lañ ko xam moo tax ñuy seenu weer bi ndax tënk wuñ ñëw ci ci calendrier yii dañoo tënk ci gis weer ak seenu weer ci la suñuy tamxarit suñuy koor suñuy kori suñuy tabaski suñuy aj màkk yépp ci la nekk te it julli ñu xamee ko mu mel ni dafa am ak at mi différence ndax 365 jours mooy atu tubaab bi bu ko defee moom mii nag at mu ne dañ rawante 11 jours 11 jours yi nag boo ko seetee ci 30 ans yi mel na at lay diire nga xam ne 30 ans bu dañ rawante weeru julli dana am fanweer fanweeri at weeru julli dana am fanweeri at benn weeru tubaab doon am doon fanweeri at moo tax différence bi am boo defee quatre-vingt-dix ans boo laqee quatre-vingt-dix ans dana ëppaate at moo tax boo amee ci at yi at ati ati kii téeméer am nga ci ati wala ñett différence boobu da am boo amee cent ans ci miladier ci xamari ba am nga cent trois ans kon différence boobu itam euh, lu mat lu mat a bàyyi xel ndax boo seetee suñu téeñ yëg yëpp ci boobu lañ koy def ku faatu sa jëkkër faatu ci ko war a téeñ ku ku sa jëkkër uh, wàcc tal uh, wàcc kuñ fase ci nga ko ci nga ko ci nga ko war a def ndax waaw waaw xam nga gis nga sax alxuraan wala an fa an fa saa su xuroo yooyu yëpp da nga ko cee war a xam yëpp ci alxuraan ci loolu la ko tënk kon muy weer woo xam ni weeru mbégte la weeru teraanga la weeru njëggal la weeru mbuus la itam ndax am na addi xeetu san yoo xam ne sëñ Tuubaa def na ko ci ak yeneen def do bu weer bi tere dañuy ñaan yoo xam ne dañu koy jàng ba taasoo ak ñaar yoo xam ne dañu koy jàng yoo xam ne dalay doon li wër doon la doon la xéewal doon la teranga kon lii rek jar na tax ñu fonk ñu gën a dellu ñu ngi ñaax waa ñëpp daal rawati ju ñu dellu seen seen diine dellu ci atu xamaree bi xijire bi ba xam seen i xibaadaat nañ koy tënke ak seeni seeni seen i seen ñuy jaxasoo yépp ñu war ko xam kon ñu ngi sant Seydina Aliou Thioune mi nga xam ni julli yitteel na ko ak taalib yitteel na ko waaye jàngal julli itam yitteel na ko ba tax muy sonne ci weer yu mel nii sonne ci bis yu mel nii di ci def ay berde di ci def ay tiranga di ko xamal nit ñi ngir soññ leen ñaax leen ñu xam seen diine xam seen bopp xam seen tiranga xam seen jëm at mii nga xam ne dafa jeex ñu war a jëm at mu bees ñu ngi ciy ndokkeel ku di jullit duñ doog kuy doomu aadama sax la ñuy wax ndax yàlla dafa teral doomu adama kon dañuy dañuy ci ndokkeel jullit yëpp di ciy ndokkeel rawat na murit yi leen ci ñaanal sun borom defal leen ci njëggal defal leen ci mucc defal leen ci sutura defal leen ci teraanga defal leen ci xeewal ci barke Seex Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu jërëjëf